rafetlu àndeen bi ak référence actu fii ñuy àddoog yéen ci référence actu seen émission bi nga xam ne nii mooy euh, zoom actu zoom actu nag ne naa la semaine bu nekkee dañu xool ki nga xam ne nii ndaanaan la ñu ràññee ko ko lool ñu ràññee ko lool ci li nga xam ne moom lay yëngu ñu dalal ko suñuy pay ay plateau fii ci studio yaay joor jàmbaar gi mu doon ci liggéey moo tax ñu koy dalal mbokk yi am mbégte bu baax a baax janoo ak moom monsieur Bouna Kanté ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci référence actu jërëjëf sëñ Saliou maa ngi lay et puis di kontaan ci invitation bi ci mm-hmm. dalal bi et puis di profité si occasion pour nuyu sunu. Mm-hmm. ñi déglu. Mm-hmm. c'est-à-dire internautes yi. et di ñaan kàddu yi ñu fi yëkkati rek. mu nekk njëriñ pour askan wi. parce rek moo tax a jóg. amiin am na solo nga nekk secretaire général di CESIS. Bouna Kanté tey bu ñu la doon laaj kan mooy Bouna Kanté ak sa cursus scolaire ak fan nga jaar ba si fii tey loo ñuy mën a wax ci ay tënk. waaw xam nga wax si sa bopp lu jafe la. mais bon bu Bouna Kanté doomu Sénégal la. Mm-hmm. jànge Sénégal ba am bakam. Mm-hmm. après dem bitim réew. mu demee bitim réew. Mm-hmm. jàng euh, droit ci université de Rouen. ba am ay maîtrise am am troisième cycle am. après jaar noonu aussi passé concours am foofu ci bitim réew. dugg ci administration territoriale génne école nationale d' administration des cadres territoriaux. et puis yoroon fa ay poste euh, direction. maanaam doon diriger ay mairie en tant que directeur général des services mm-hmm. donc def naa ko pendant ay quinze ans mm-hmm. ce qui fait que euh, man je suis spécialiste des collectivités territoriales mm-hmm. mais formation juriste laa am donc juriste laa ba ni may ñibbisee Sénégal en deux mille dix huit d'accord euh, nekkoon foofu caisse de dépôt et consignation nekkoon fa le directeur de l'audit et du contrôle interne et puis 2020 ñu yóbbu ma CGIS mooy compagnie générale immobilière du Sahel. muy filiale immobilière de la caisse de paie consignation. Mhm. ba ba si ñuy wax ni man ma fa yore poste secretaire général. d'accord bu na am na solo ci kàddu yi ñu jot a tënkal rek naam sa cursus wala sa CV xajul ci émission bi nii mm-hmm. waaye kontaan nañ loolu bu ne bu jógee ci loolu dañuy ñëw direct ci li nga xam ne nii mooy euh, politique yow nga nekk acteur politique nekk ci parti bi nga xam ne nii mooy APR. le président Macky Sall bu yàggul dara mu def gouvernement bu yees am ay poste yoo xam ne nii jot na ko joxe waaye ñu nemmeeku ba ci biir am na ñoo xam ne demoon nañ waaye ñëwaat nañ ban jàngat nga am ci gouvernement bu bees bi Macky Sall waaw bon am na ay émission yu bari yoo xam ne jot naa ko def doon féliciter président de la république si li mu delloo si waat mhm. poste premier ministre mhm. parce que sénégalais yi ñu ngi ko doon xaar mhm. ah, xaar bi yàgg na à chaque fois ñu ne vraiment bëgg nañu mhm. un premier ministre pour gën a ñoŋal liggéey bi mhm. donc président vraiment déglu na askan wi mhm. delloo si waat poste premier ministre bi mu supprimé woon parce que lu waroon doon suppression boobu mooy mu gën a jege ministre yi gën a accélérer liggéey bi être en contact direct comme ni ma koy faral di waxee avec les ministres pour euh, baral liggéey bi bon bi ñu koy tabee nag euh, président Union africaine muy euh, sas bu rëy. Mm-hmm. boo xam ne moom moo war a teewal Afrique fépp ci àdduna bi. Mm-hmm. muy fierté pour le Sénégal. Mm-hmm. ah je pense que su delloo waatee poste premier ministre. pour vraiment mu am un chef du gouvernement. loolu dañ koy rafetlu et puis tamit mu tànn ñoo xam ne am nañ expérience. ñoo xam ne vraiment suñ leen tabee dinañu gën a baral liggéey bi. parce que demande sociale bi bari Euh, au niveau ci askan bi aussi am na yu bari ñuy xaar. donc euh, gouvernement bi comme ni ñu ko waxee c'est gouvernement de combat. mais combat bi par rapport aux urgences sociales. Mm-hmm. Mm-hmm. par rapport ak jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel te sooy xool projection budgétaire yi ñu yi ñu jot a am. Mm-hmm. conseil des ministres bële passé. Euh, pour 2023 ñu ngi annoncé un budget de 6400 milliards. d'accord donc avec euh, vraiment euh, yokkute bu bu mucc ayib. Mhm. parce que budget daaw maa ngi koy wax la dernière fois. 5500 mhm. milliards la woon. Mhm. donc presque dinañ ci yokk euh, daanaka 900 milliards. mais loolu tamit su su nekkee. dañuy xam ne aussi. à partir de 2023 dinañ commencer produire euh, vraiment li ñu naan les hydrocarbures. d'accord loolu day tax sunu budget bi gën a am solo. d'accord et de couvrir aussi euh, les dépenses. Mhm. ah au niveau euh, les dépenses publique d'une manière générale. d'accord bu na buñ la déggee nga ne six mille quatre cent milliards mais milliards yi ñun dégg-dégg rek lañ ciy am boobu ba mhm. léegi parce que gisuñu mbir yi avancé gisuñu dara dox mhm. Sénégal milliards yi chaque année dañuy dégg budget bi six mille quatre cent milliards yoo xam ne nii waxati nañ ko te ñu xam fan lay jaar wala du jëriñ askan wi ndax lool loolu noonu du ay naxee mbay. non du naxee mbaay parce que euh, à chaque fois <laughs> loolu la ñuy tegal parce que su doon mbaay je pense que duñu def TR bi ah mhm. su dee parce que TER bi xaalis bari la jar. Mhm. am na ay sénégalais yu doon wax sax du daw. mais TER bi bu ñu fàtte ni jamono ji am na rang bu métti boo xam ne ni mu ngi am foofu. ñu ngi bu ñu wàccee est-ce que du train yi dafa doyul ak milliards yi ñu ci def yëpp. non xam nga xam nga. Euh, lu sotti am surcharge bi bi bari na ci TER bi. waaw lu sotti am boromam. Mhm. xam nga dañ doon wax du daw. tey ñu naan surcharge. donc dañuy reconnaître. que loolu c' est un succès. sénégalais yi soxla woon nañ ko pour désengorger la capitale. am na ñoo xam ne dañuy jógee dañ doon jógee euh, caaro yi. Mhm. pour ñu dem dakaar 6 mhm. heures du matin lañ doon yeew. Mhm. léegi soo yeewoo 7 sax balaa 8 heures yaa ngi Dakar donc loolu dafa réduire vraiment jafe-jafe yi ñu doon jànkonteel ci tali bi et puis embouteillage yi. mu ñuy coûter ay milliards et des milliards mm-hmm. kooku FMI wax na ko donc tey su amee ay ay buuxanteeg yooyu mm-hmm. ah euh, vraiment c'est-à-dire que mm-hmm. les sénégalais dañu jël projet TER bi approprié ko def ko seet moomeel loolu nag président bu nekk soo tegee un projet ñu koy ŋàññ naan baaxul tey sénégalais yëpp plébiscité ko je pense que foofu la ñu war a duut baaraam maintenant nag dinañ yokk ci ay maanaam. ay euh, xeetu vacon. d'accord ah pour gën a vraiment permettre que population bi di ko jël mais li ñu war a retenir tey mooy un un succès. Mm-hmm. vraiment de ce projet la mm-hmm. alors que ñëpp vraiment dañ ko doon ŋaññi di ci wax lu kenn xamul. Mm-hmm. donc euh, li nga wax tamit am na solo. yaa ngi naan croissance boo xam ne. Euh, Sénégalais yi gisuñu ko. donc kooku tamit soo gisee ñu teg lu mel ni Ila Touba. avant suñ doon dem màggal. Hmm. man dama doon fanaan si yoon bi yendu fa. fanaanaat fa. mais su may dem màggal léegi. Hmm. vraiment lu mu xat xat xat xat. di nga teel a àgg di nga teel donc loolu croissance moo tax ñu mën ko def. Hmm. suñu ne tey y a les bourses familiales. ñi nekk ci kaw gi. même su dee cent mille francs lañ leen di jox par an. am na ñu nekk ndakaaru fii ci réew taax yi. di ko xeeb mais foofu en période de soudure dinañ dem ba. Euh, maanaam dund bi day xaw a néew mais cent mille francs yi suñ leen ko joxee dina leen permettre ñu continuer ba nawet bi ñëwaat ñu am lu ñu dundee donc c'est un système waaw c'est un système de solidarité te loolu amu amu fi woon président moo ko teg donc loolu croissance moo tax ñu mën ko def suñu jëlee euh, salaire u fonctionnaire yi mhm. yokk ko dégg nga récemment que yokk nañ ko mais croissance moo tax ñu mhm. mën ko def mhm. suñu ne retraités yi dañu yokk seen salaire mais croissance moo tax ñu mën ko def suñ demee ba tabax ah lu hmm. mel ni stade hmm. Abdoulaye Wade hmm. Lions yi fubal fa am fa ndam bay dem coupe du monde tey ñu naan Sadio Mané il sur le toit de l'Afrique deuxième au niveau mondial mais donc croissance soo ko mënul soo ko amul doo mën a def benn investissement les bourses familiales ah loolu croissance bi moo ko tax donc mënuma gëm ne ñu naan croissance bi eggul ci Sénégal yi récemment jël nañu cinq cent mille famille am président yoo xam ne yónnee na leen ko pour jàppale leen ko loolu mooy rôle lu état. loolu mooy rôle lu président de la république. jàppale askan bi. donc man d' ma tey ñu naan croissance bi. Mhm. eggul ci sénégalais yi. mi ngi egg ci sénégalais yi. Mhm. li ma mën a comprendre li ma mën a dégg li ma mën a nangu mooy nañ ko yokk. mais kenn tey mënul wax ne. Mhm. domaine boo fi cité. je vous mais à défi. Mhm. amul benn domaine boo xam ne mën nga ma ko sital ci nguur gi mhm. président doublé wu ko par deux wala doublé ko par trois d'accord loolu nag la ñuy xaar ci président bu d'accord buñ jógee ci loolu mu na lenn lu lu lu gën a jege rek mooy li nga xam ne ni mooy mbirum dund gi ak location bi booba léegi dañuy wax dinañ wàññi nañ wàññi mais dañu nemmeeku ne chaque jour day gën a yokk am na fu mu nekkoon chaque jour day gën a yokk est-ce que loolu gënul nekk priorité ki jël cent mille ay soixante mille di ko séddale ñi nga xam ne nii ñooy famille yooyu noonu parce que soixante mille cent mille da koy dundee benn weer ñaari weer mu jeex après nga toggaat yeneen at di ko xaar aussi waaw loolu question bu am solo la la question des lois xam nga en 2014 am na benn loi bu ñu fi voté woon mm-hmm. loi du 3 février 2014 bu doon réguler les loyers mm-hmm. xam nga entre loyer yoo xam ne ba cent cinquante mille la ñu wàññi woon ci vingt neuf pour cent. d'accord am loyer yoo xam ne entre cent cinquante mille ak cinq cent mille. Mhm. ñu wàññi ci quatorze pour cent. Mhm. et les yu supérieurs à cinq cent mille ñu wàññi woon fii. Mhm. je pense de de mémoire quatre ou cinq pour cent. d'accord mais loolu yëpp mujjeewul antu parce que damay wax toujours que ku tabax sa kër aussi. fer bi cher. ciment bi cher. ah ouvrier yi koy tabax cher mm-hmm. nga ñëw ne ko wàññil sans pour autant ñu am yenn concertation yi je pense que day xaw a jafe te soo xoolee le 26 euh, septembre bi passé mm-hmm. président woo na vraiment tous les acteurs de l'écosystème mm-hmm. ah au niveau de la de, du palais ñu def ay concertation ah waxtaan ci loolu yëpp man je pense que affaire loi yi c'est vrai que ñu ngi wax dinañ jël benn décret mm-hmm. le premier janvier 2023 mm-hmm. pour réguler ko parce que il faut réguler aussi parce que askan bi sonn nañ ci wàllu waay mais nag mm-hmm. yooyu yëpp état bi mi ngi ciy dox ay ay jéego yu am solo parce que am na produit yoo xam ne waaw foofu laay ñëw am na produit yoo xam ne ñu ngi koy importer mais droit de douane yi dañ ko teggi yu mel ni ay fer ak ay ciment yooyu pour nga xam ne askan bi su koy jënd du metti ci ñoom man li ma jàpp mooy il faut que tous les acteurs jouent le jeu mhm. état bi rek mënul jouer le jeu yow su dee propriétaire nga mhm. je pense que tamit war nañu dimbalante suñu biir xam ne euh, euh, euh, wàllu loyer bi cher na mhm. et puis tamit li may wax toujours mooy il faut ñu xool naka la ñuy changer aussi de paradigme par rapport à la question du loyer parce que maa koy faral di wax dakaar le Sénégalais yëpp presque di daje parce que de la croissance 70 pour cent de l' activité économique. Mhm. ci Dakar la féetewoo. d' accord comprendre te Dakar c' est 0,3 pour cent de l' étendue du territoire. Mhm. xam nga loolu day créer ay déséquilibre parce que ñëpp dañuy ñëw jéem a daje Dakar. Mhm. rien que Dakar on a un déficit de logement de 150 000 logements. d' accord ci Sénégal yëpp am nañu déficit de 320 000 logements. xam nga loolu. du ay question yoo xam ne dañ koy traité nii. d' te man dama jàpp ne. Mhm. solution bi location vente la. parce que avant dañ doon tabax ay SICAP. ay HLM. di ko suñuy pàpp mhm. ci yooyu la ñu jaar ba am kër. tey xale bu ndaw buy soog a démarrer. Mhm. du am vingt cinq millions wala trente millions yu muy jëndee kër. donc état bi il faut ñu continuer. jéem a dem sur la location vente. pour permettre aux primo accédants ñu mën a am dëkkuwaay. d'accord mais bu na loolu est-ce que mën na am ak jamono ji ñu toll nga xam ne nii ngeen ñi féetee ci nguur gi euh, jël ngeen li nga xam ne moo dootoon des suuf fii ci Ndakaaru séddoo ko seen i biir li ngay wax noonu dina mën a nekk jamono jii nii. affaire bi dootul Dakar wax naa la ko. Mhm. parce que Dakar dafa am lu ñu naan benn phase d'étalement. urbain kon d'accord nga ne suuf si dekk Dakar da ngeen ko jël séddoo. non non xaar rek ma ñëw xaar rek ma ñëw <laughs> man dama ne la. Mhm. dakaar dañu terminer benn phase d'étalement urbain xam nga dañuy tabax di dem. Mhm. suñuy tabax di dem. Mhm. à un moment donné dootul am espace. donc da ngay tabax ci kaw. te sooy xool quartier yu mel ni Point E. dañuy construire en hauteur. mais loolu tamit am na ay jumtuwaay yu ñu ci war a andi. ci wàllu réseau d'assainissement yi parce que dañuy gis quartier résidentiel yoo xam ne léegi day taa. ainsi de suite. donc tey enjeu bi mooy ñu jéem a génn Dakar. ay Bambilor mm-hmm. ay Sébi Xutaan ay Diamniadio commencé di tabax foofu ay kër yu mucc ay dem ci location vente di ko jox sénégalais parce que il faut que ñu inverser la tendance parce que lépp dañ ko polariser sur Dakar président apporté na une première solution avec ñaajo je pense que yooyu la ñu war a gën a poursuivre gën ko ñoŋal ba nga xam ne la question de l'habitat mm-hmm. dañ koy régler mais aussi il y a des problèmes yoo xam ne yu tar la mm-hmm. parce que tey ku bëgg tabax soo demee ci banque bi dañ lay laaj bulletin de salaire. effectivement ay garantie. Mm-hmm. alors que mais ñiy góorgóorlu ñi nekk dans le secteur informel amuñu garanti yooyu. Mm-hmm. donc il faut ñu gën leen taxaw. et puis banques yi du ñu jël ay risques. Mm-hmm. quand tu euh, sooy def prêt immobilier te xaalis bi ñu jagleel wàllu immobilier yi dafa néew loolu par rapport ak banques yi li ñu ciy def ak ñoom li ñu ciy gagné. donc yooyu yëpp aussi ay domaines yoo xam ne lañu war nañ ko gën a xool. gën si réfléchir. ah parce que tamit nit ki su nekkee ci loyer. Mhm. ba dem retraite. Mhm. mais dootul amati pouvoir d'achat boobu. da koy bàyyi dans la précarité. effectivement xam nga tey loyer loyer baax na. Mhm. mais aussi il faut ñu am ay alternatives nga xam ne ëllëg si biir. am loo xam ne lu wóor la lu dëgër la même soo demee retraite doo ko yëg. mais koo wàññil tey loyer. su demee ba retraité. mais salaire am dootu ci deseti dara waaye boobu sax du ko mën a fay donc tu le maintiens dans la précarité donc réflexion yooyu yëpp lañu ñu war a vraiment xoolaat mm-hmm. ah c'est vrai que loi yi cher na mm-hmm. war nañ ko wàññi acteur yëpp war nañ ci jàpp mm-hmm. président war nañ ci jàpp mais aussi il faut ñu xool yeneen forme parce que fii ci euh, sous-région bi Côte d'Ivoire gi nga xam ne soriwul ñoom bi ñuy teg seen caisse de dépôt et consignation man mii ci ñi demoon former les cadres ivoiriens si la bokkoon. d'accord pour tegal leen seen i procédure. système bi ok si système bi. Mhm. mais ñoom loi bi bi ñu koy jël. Mhm. dañu ne caution loi yi caisse de dépôts et consignation nga koy verser. parce que yow sooy jël loi yi di nga mhm. jël de caution un mois de sal un mois de loi yi. wala deux mois de loi jox ko propriétaire mu téye ko dugal ko si poosam. mais xoolal Ndakaaru. suñu jëloon caution yëpp di ko verser caisse de dépôt et consignation. mais loolu xaalis bu takku la te di nga ko mën a dugalaat ci locataires yi pour faj seen soxla parce que ñëpp duñu ñëw jëlandoo xaalis bi. d'accord donc di nga fa am benn fonds bu takk boo xam ne di nga ko jagleel les locataires. di leen jàppale seen jafe-jafe. d'accord am na solo mbokk yi ba tey yéen a ngi seen émission bi di Zoom Actu nekk fii ci référence actu studio Yaye Dior ñuy dalal ki nga xam ne nii mooy Bouna Kanté nekk secrétaire général CESIS euh, Bouna bu ñu jugee loolu dañu ñëw ba tey ci li nga xam ne nii mooy gouvernement bu yees bi ñu gis kii di président Macky Sall génn dàq jëlee foon ki nga xam ne mooy euh, Mame Mbaye Niang mm-hmm. mu jël ko xëccaat ko bu ko indiwaatee ndax daf ko indi mun mu jàmmaarloog Sonko wala Mame Mbaye dafa mën xeex moo tax euh, sawaay xëccaat ko lan ban gis-gis nga am ci loolu waaw xam nga man du ma commenter ay décision président. d'accord man bokkul samay sama. sama sama éducation politique. d'accord ak ni may gisee politique. da nga ko jox cër. président dama ko jox cër. Mhm. non seulement jox naa ko cër. Mhm. mais c'est l'homme le plus renseigné de ce pays. d'accord xam nga. d'accord y a les informations y a le renseignement. d'accord bokkul. d'accord c'est l'homme le plus renseigné. d'accord lépp lu mu def. Mhm. xam na lu tax mu def ko. am na fu mu ko teg mm-hmm. donc man décision bu mu jël mm-hmm. dama ko siy jàppale mm-hmm. ñoŋal ko vulgariser ko accompagner ko loolu mooy sama rôle mais pas di commenter décision président tey ñu nekk coow li bëri lool ci mbirum euh, troisième euh, candidature euh, troisième mandat ban ban ban jàngat nga am ci loolu ndax da nga pare pour gunge Macky Sall ci bëgg-bëggam boobu waaw xam nga loolu question bu am solo la parce que sénégalais yëpp actuellement loolu moo leen soxal mais damay def benn rétrospective rek. Mhm. Euh, ñëwaat ci bi ñuy def référendum bi. Mhm. parce que y quinze points. Mhm. mais je pense que li gënoon cristalliser le débat. c'était la question de la durée du mandat et le nombre de mandats. donc euh, ci boobu. président je pense que dafa amoon promesse bu mu joxoon Sénégalais yi ne su ma faloo mandat sept ans bi naa ko wàññi ba cinq ans. d'accord ñu dem loolu. bëgg-bëggam la mhm. bi ñu demee ci conseil constitutionnel mu ne ko loolu nga bëgg waaye charte réew bi mënula la permettre ngay wàññi mandat bi ñu def constitution bi mhm. kon mandat sept yi kenn du ko laal mhm. su ñu waree wàññi peut-être ci mandat yi war a ñëw la loolu buy benn deuxièmement conseil constitutionnel ci benn décision 1C du 12 février 2016 tontu na ci question boobu ne mandat sept bi en cours mhm. c'est une disposition intangible et bokkul ci les dispositions nouvelles mooy modification yi ñu doon def c'est un mandat hors de portée donc je considère que mhm. le président de la République il est à son premier quinquennat donc aujourd'hui il a droit à un deuxième quinquennat mhm. te man su ko bëggee naa ko si jàppale parce que loolu laa gëm mhm. man je suis un euh, je suis pour le respect de l'ordre constitutionnel mhm. xam nga parce que constitution tamit soo jëlee article vingt sept doo ko lire in solo mhm. c'est-à-dire doo ñëw rek ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs okay. mais balaa loolu mhm. am na lu constitution bi wax dafa ne la durée du mandat du président mmh. est de cinq ans il faut une lecture mhm. in bino c'est-à-dire la combinaison de ces deux, deux dispositions par conséquent la constitution lui permet mhm. vraiment de faire un deuxième quinquennat mmh. maintenant la décision finale incombe au président de la République appartient au président de la République man sama position mooy su ko bëggee naa ko si jàppale d'accord bu na boo nee tey da ngay jàppale président Macky Sall li nga xam ne nii mooy troisième mandat est li ngeen ko jege moom moo tax parce que bu ñu nemee ko kii di Mimi Touré na bërki Demba Ndiaye muy xala euh, président de la République di wax ci li nga xam ne ni mooy troisième mandat bokk na ci ñuy xeex loolu est-ce jii nii du position bi ngeen nekkee moo tax ngeen di jàppale président Macky Sall pour moom troisième mandat waaye du loo xam ne ni jaar na ci yoon waaw xam nga ku mu neex nga ne jaarul ci yoon mm-hmm. mais man position juridique laa am soo gisee ma ne la am na droit à un deuxième quinquennat man waxuma la troisième man la mm-hmm. il a fait un premier quinquennat il a droit à un deuxième quinquennat ah, ah, te dafa am fu ma ko teg mm-hmm. dafa am fu ma ko teg ci décision conseil constitutionnel laa ko teg mu tontu ci question boobu après nag Mimi Touré su bàyyee ba génn ci ci nguur gi. Mhm. commencé di di di di ŋaññu nguur gi. Mhm. man loolu day tey sama xel. d'accord parce que bi mu ci nekkee. Mhm. kenn déggu ko officiellement mu wax ko. parce que président assemblée nationale la bëggoon. jox ñu ko président assemblée nationale. mu génn di sànni xeer mais kooku saison son droit. mais wax naa ko waxaat ko. le fait que nga diriger liste coalition bi. joxu la droit pour nga nekk président assemblée nationale. parce que am na ñoo xam ne diriger nañ list bi. Mhm. nekkoon ci Benno Bokk Yaakaar bi. Mhm. mën naa joxe ab euh, exemple Boun Abdallah Dionne. mais taxul ñu def ko président assemblée nationale. donc euh, te mi Mimi Touré nag wax dëgg yàlla. Mhm. président cër bi mu ko waroon jox yëpp jox nañ ko. d'accord parce que jox nañ ko fi fii parce que euh, ministre de la justice jox nañ ko premier ministre au conseil euh, économique et social le conseil économique et social mhm. environnemental mhm. yooyu yëpp ay station yu élevé la au niveau de l'État donc il faut vraiment mhm. que ñu revenir aux fondamentaux et à la raison xam nga et puis taxaw ci principe yi sooy ànd ak euh, kilifa nga dem ba euh, ànd bi neexul. Mhm. je pense que il faut nga am retenu parce que li nga doon li ngay xeex tey. Mhm. bi nga nekkee ci biir waxoo ko. waxoo ko effectivement waaye bu nam Mimi bu waxee loolu ne tamit Mimi li mu liggéey seen parti gis nañ ko ci élection yi yi li nga xam ne nii Mimi liggéey na ko ndax fu nekk dem na fa campagne li yéen seen waa parti mais bu ñu gisee ne président Macky Sall jël na li nga xam ne nii mooy poste bi mu doon xëccu jël ko jox ko ki nga xam ne mooy mbokkam moom it Mimi mu génnaat di ŋàññi ne dañu war xoolaat lool noonu ndax président de la république bëri na poste yoo xam ne ni da ko jox ay mbokkam wala ay mbokki soxnaam yow it ban jàngat nga am ci loolu ak sa gis-gis ci loolu. waaw loolu foo ko teg ban mbokkam la jox poste. mais président ah, assemblée mbokkam. mais mais loolu loolu loolu lañ wax. loolu la seen wax yéen tam na ngeen dem vérifier. information cousin wu jabaram la. c'est-à-dire non cousin wu soxnaam la jabaram la. xam nga xam nga man dama bëgg. gis nga toujours damay rappeler. l'affaire Nixon. Watergate mhm. ou des journalistes mhm. ñoo dem def ay recherche poussée ba xam ne le président Nixon mhm. dafa doon def ay espionnage looloo tax ñu daaneel ko c'est-à-dire gis nga tamit euh, ci réew mi lépp lu ñuy yëkkati rek il faut ñu koy teg ci lu leer xam nga aller à la source de l'information vérifier la véracité des informations parce que da ngeen am pouvoir da ngeen am pouvoir bu doy waar ci réew mi loo leen wax rek dañ koy wasaare tasaare ko man suñ ne ay cousin kii yam laa kërëb kërëb mhm. Aliou Sall la mhm. il était directeur de la caisse de dépôt consignation mhm. man maa doon liggéey ak moom maa doon le directeur de l'audit et du contrôle d'accord mais il a des compétences avérées xarañ lool ci liñ ko dénkoon d'accord donc pourquoi une discrimination pourquoi un délit familial yow kan nga sant tey soo nekkoon président de la république képp ku sant kan ci réew mi sa mbokk la kon waratul liggéey ci état bi mais loolu fu ñu ko teg. c'est-à-dire mais yii dafa jege dafa doon lu jege. parce que bu ñu bu ñu xoolee tey jii nii ay rakku euh, soxna soxna première dame la ñu jël jox leen yenn poste yi aussi. waaw mais mais ñooñu ce sont des sénégalais ce sont des sénégalais comme tout le monde mm. man loolu amul ma benn problème à ce niveau. xam nga lan mooy sam problème. Mm. ñu jox la affaire yi tegoo ko ci yoon. loolu moom wax dëgg yàlla. Mm. Euh, je pense que xel mu nu ko nangu. d'accord mais su dee kii am na compétence. Mhm. vraiment fas yéene liggéeyal réewam. Mhm. mais waruñu ko ko privé quoi. donc bàyyi ko mu liggéey. su defee naka dul noonu nag. Mhm. y' a pas problème moi je suis contre le népotisme. mais tamit dafa am ay limites. parce que socle société sénégalaise mhm. mooy lien de parenté yi ñu seq mhm. Ah, mhm. sunu sunu kal yi ah, entre le séréer et le tukuleur ainsi de suite kon loolu nag tey suñ ci bëggee dut baaraam je pense que les fondamentaux ah de notre société loolu la ñu bëgg a euh, nësaxal pour mu nërmeeru te je loolu tamit ku koy yëkkati je pense que yaa ngi yëkkati fitna ci réew mi d'accord képp ku am compétence ñu jaare ko si yoon war nga mën a liggéey d' accord donc donc man loolu laa jàpp. donc yow da nga bëgg ne ki nga xam ne nii moom la Macky Sall teg foofu noonu ñu koy yëkkati euh, di ko wax loolu fitna lañ bëgg yee ci réew mi. ku ñu teg fan nga ne. Euh, président de de l' assemblée nationale. bi nga xam ne moom lañ fal. ku ko tudd rek fitna la bëgg a yar. mais xam nga xam nga euh, xam mhm. dafa am notion bu am solo. Mhm. bu ñu naan confiance. Mhm. la compétence parfois ne suffit pas. d' accord mën a xarañ ci ñëpp mais politique man dama jàpp confiance c' quatre vingt pour cent. mais président moom mooy apprécier su dee kooku la wóolu hmm. mais c'est le président de la république ku mu wóolu la fay teg loolu kenn mënu ko ko tere ay cëram la donc yooyu waruñu ci dugg ba ciy sori kooku la wóolu teg na ko fa pour mu gérer ko assemblée nationale hmm. mais nañ ko ko nangul d'accord parce que c'est pas illégal d'accord cër boo xam ne hmm. constitution moo ko jox loi moo ko jox suñu waxtaanee seen biir Mhm. mën na ne kii moo fay dem. d'accord moom moo ko doy waaw après après nag suñ demee assemblée. Mhm. ñu votel ko. Mhm. mais mën na jox orientation ne kii laa wóolu tegal leen ma ko fële. yow sa biir kër mais ki nga wóolu nga fay jiital. effectivement waaw léegi nag pour pourquoi yow ñu war la imposer nooy xalaatee wala ki nga war a tànn. d'accord. Hmm? donc euh, le président a son agenda. je pense que waruñu ko imposer ni muy xalaate ak ku mu ku mu war a teg ku mu warul teg. d'accord donc ku mu wóolu rek na ko jiiteel et ñu jàppale ko. am na solo mbokk yi ba tey yéen a ngi seen émission bi di Zoom Actu ñuy dalal ki nga xam ne nii mooy Bouna Kanté nekk secretaire général CESIS waaye nekk responsable politique ci partie bi nga xam ne nii mooy APR Bouna dañuy ñëw ci li nga xam ne nii mooy actualité mbiru Ousmane Sonko Ousmane Sonko fu mu génn rek. ngeen koj ko yóbbu yabal ay gendarme ñu dem yàq ay mbiram te li nga xam ne nii ci la nekkoon mooy nemmeeku tuur dem dox tànki jàmm ana ban gis-gis nga am ak ban jàngat nga am ci lool noonu attaqué biñ ko attaqué dem fekk ko ba fi nga xam ne nii mooy fa la nekk di ko sànni ay grenade lacrymogène ban jàngat nga am ci loolu. waaw xam nga constitution bi. Mhm. dafa am ay charte yu mu yu mu yu mu tënkee réew mi. Mhm. maanaam liberté d'aller et de venir. Mhm. aller librement vaquer à ses occupations cest a dire yow tey en tant que citoyen mën nga war a yeewu taal sa oto dem liggéeyi te kenn du la sonal kenn du la xatal nga dellu soit ñibbi sa kër te Sénégal aussi euh, sëñ bi il faut ñu xam ne dafa am temps pour politique d'accord temps pour liggéey réew mi trois cent soixante cinq jours yëpp de l'année dañ ko bëgg politique mais loolu àndul ak développement. man nekkoon naa ci réewu nasaraan yi. Mhm. mais balaa ñuy yëngatu ci wàllu politique élection jot. Mhm. mais fii xamuñu période électorale. Mhm. xamuñu période boo xam ne dañu war a liggéey. donc lépp luy attroupement lépp loo xam ne trouble à l'ordre public la. képp ku ko def ci réew mi. ak koo mënta doon. gendarmerie am na droit ne la stoppé ko. suy def ay nemmeeku na dugg ci kër yi nemmeeku nit ñi. ça y a pas de problème. mais la voie publique. Mhm. am na noo ko war a occuper. il faut des autorisations ainsi de suite ainsi de suite soo amul autorisation chaque jour nga bëgg a dajale ay nit ci voie publique yi. Mhm. bloquer circulation bi. Mhm. ñu bëgg a liggéey du ñu mën a liggéey mais loolu da ngay sonal askan wi soof askan wi. donc euh, gendarme yi li ñu def. man je pense que loolu mooy yoon ku bëgg nemmeeku na nga dem nemmeeku askan wi fekk leen ci seen biir kër. nga nemmeeku leen foofu yaa y' a pas de problème. d' bu na bonee trouble à l' ordre public aussi ñun dinañu xaw a jaaxal tuuti parce que ki nga xam ne ni mooy le président Ousmane Sonko bi muy dem moom newul kenn topp leen ma mais nit ñi ñoo génn topp ko est ce du loolu moo leen tiital yéen waa APR. non ñun ñun tiituñu ay kuy kuy wax waxu tiit. sax non Sonko dafa mel ni tiital na leen de. non non non kuy wax waxu tiit. day mm-hmm. mel ni da am problème. Mm-hmm. parce que dañu nekkul période électorale. Mm-hmm. je pense que li muy njëkkante. di daw. bay bëgg daanu naan day nemmeeku moom moo ko xam. d'accord parce que il a une affaire pendante devant la justice. nañu wax ci ndeyu mbill ji. Hmm. bañ a distraire les sénégalais. mooy lan am na xale bu ko tuumal bu tudd Adji Sarr. Hmm. comprendre nga. Hmm. ñu war lijjanti loolu. na dem tontu loolu leeral ko. ah mais ay nemmeekook yooyu. Mhm. vraiment c'est pour divertir les gens man loolu laay wax. d'accord yéen bu ñu ne ah, affaire Adji Sarr est-ce que du loolu rek mooy seen arme wala seen ngàndaay bi nga xam ne ni moo war a mën a tax ñu jël kii di Ousmane ko lax lax ko jant bi ngir ngeen mën a wéyale seen yoon dafa mel ni foofu ngeen. teg question wéyale dama ne. Mhm. su dee am na citoyen boo xam ne am na lu ma la tuumal. Mhm. balaa ngay nemmeeku ñun ñi leeralal loolu man loolu rek laa. d'accord après fii. état de droit la ñu nekk. d'accord munoo aussi tamit yow soo xamee ne soo génnee xale yëpp topp la. Mm-hmm. ngay bloquer circulation bi di créer ay trouble mm-hmm. mais li nga war a def mooy toog. ba période élection jot nga nga jóg. c'est-à-dire jàmm ñaara koy dox. Mm-hmm. d'accord am na solo mbokk yi waaye bu na duñu ñëw ba tàggatoo te ñëwuñu ci li nga xam ne nii fa nga yëngu fa ngay liggéey mooy euh, caisse de dépôt. lan mooy rôle rôle fa ngay liggéey bërëb boobu lan mooy seen rôle fii ci Sénégal parce que am ñoo xam ne ni dese na ñoo loolu. waaw caisse de dépôt et consignation établissement public la à caractère spécial. Mhm. am ay mission yu bari. Mhm. donc euh, dafa mel ni. Mhm. Euh, notaire yi tey exemple bu may joxe la. notaire yi avant suñ doon def ay transactions immobilières. jaay la suuf lu tolloog cinq milliards exemple laay joxe. d'accord cinq milliards yooyu dañ ko doon bàyyi ñoom seen compte. bu leen di jural ay intérêt. d'accord léegi dafa am benn loi. bu ne yow soo defee transaction immobilière en tant que notaire au lieu nga koy bàyyi sa compte mu lay jural ay intérêt da nga koy verser caisse des dépôts et léegi notaire yëpp suñu verser ay milliards ak milliards la d'accord léegi comme notaire yëpp duñu daw jëlandoo li ñu fa bàyyi en mm-hmm. même temps mm-hmm. xaalis boobu ñun dañ koy dugal ci ay projet mu delluwaat ci askan wi liggéey ci mais dañ ciy mm-hmm. liggéey ba pare nag di ko calculer xam ne kii fi ak at wala ñaari at dina soxla xaalisam ñu am réserve boo xam ne saa yu soxlaa xaalisam ñu koy liggéey tey lu mel ni Air Sénégal caisse de dépôt et consignation mooy def plus de vingt trois milliards bañ ko teg ah, ah oui donc euh, presque suñu filiale la te loolu nit ñi xamuñu ko am na ci ay projet hmm. fu mu toll nii électricité bi hmm. ah am na ay projet yoo xam ne dugal nañ ci ci capital bi hmm. bokk ci muy delluwaat ci Sénégalais yi am na société yoo xam ne tey ñu ngi dans l'immobilier ñu ngi ciy dugal suñu alal hmm. pour que sénégalais yi di am ay dëkkuwaay yu mucc ayib yooyu yëpp ay projet la hmm. soo jëlee les consignations judiciaires hmm. pour ñu jox la liberté provisoire li ngay fay xaalis bi du tribunal moo koy téye mais caisse des dépôts et consignation nga koy versé d'accord que kooku levé wuñu peine bi xaalis baa ngi fii moo fa toog donc dañ siy liggéey d'accord mais di ci liggéey ay projet yoo xam ne ci askan bi lay delluwaat di jur dara parce que ñu ngi ci wàllu santé bi ñu ngi ci domaine yu baree bari bari yoo xam ne caisse de dépôt taxaw na am taxawaay bu am solo sooy xool filiale immobilière bi ma nekk tey mhm. kooku ci mission caisse de dépôt et consignation la bokk muy tout logement de haut standing mhm. et les logements sociaux fële ci Bambilor ñu ngi fay jaay cité CDC am na fa ay terrain mhm. yu mucc ayib yoo xam ne cherul ah CDC ci koom googu mhm. loo ko jëlee jënd fay terrain viabilisé pour sénégalais yi mën ay am ay terrain yu mucc ayib donc mécanisme bi loolu la tëddee mhm. ah, ci gàttal daal d'accord am na solo bu na waaye dañuy ñëw tamit dugg ba tey ci li nga xam ne ni mooy actualité ndax ñu ngi suñu émission bi nga xam ne ni mooy euh, Zoom Actu kii di Sadio am trophée boo xam ne nii moom la jël jël deuxième place ci li nga xam ne ni mooy wàllum Ballon d'Or mu doon loo xam ne sénégalais yëpp wala africain yëpp euh, am nañ ci mbégte yow bi nga gisee lool noonu ban ban kontaan nga ci am. waaw fierté. fierté vraiment parce que Sadio Mané macha allah. yóbbu na Sénégal fu sori parce que à part George Weah bi jëloon euh, balon d'Or bi. amul benn africain bu egg à ce niveau. niveau boobu ah, tey moom mu ñëw jël deuxième place. vraiment euh, dañ koy rafetlu. ah loolu pour pour Sénégal lu am solo la. Mhm. macha allah il faut que mu continuer noonu. avec cette rigueur cette simplicité. Mhm. humilité mhm. et puis li muy def yëpp social. ci dëkkam boobu Bambali. nga xam ne xale bu am jom la. xale bu xam fi mu jëm la mm-hmm. xale bu dal la bu tey la mm-hmm. donc dañ koy ñaanal vraiment mu loo ko mu nekk wërsëgam et puis mu amaat yeneen trophée ah pousser un petit peu pour mm-hmm. être ballon d'or vraiment mu nekk peut-être le deuxième africain boo xam ne dina ko am d'accord ah, laa koy ñaanal amiin yaa rabbi bu na mënoon nga football man dama doon football d'accord dama doon football football naa Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc ah, ah, ah football naa équipe nationale junior d'accord ma demee bitim réew dama doon football ba Euh, division d'honneur nekkoon naa entraîneur de football parce que j'ai mes diplômes de deuxième degré en tant que footballeur d'accord ah j'ai été président de club de football okay. en France donc euh, dama doon forme ay joueurs ah, si loolu laa doon yëngatu donc football moom am na lu ma ci jot a xam. d'accord d'accord mais ñun bi ñuy fubal en génération yi bokkul. bi ñuy entraîner ñun à l'époque Jeanne d'Arc. Mhm. je pense que gannaaw école sacré lañ doon fubal foofu. d'accord di fa entraîner bi ñu nekkee cadet tout ça. d'accord donc euh, football moom ça a toujours été ma passion. d'accord et puis euh, su may seetaan nouvelle génération bi. Mhm. léegi football bi c'est devenu plus technique plus physique. Mhm. te ñoom am nañu chance tomber période boo xam ne tamit. mën nga ci def euh, ay réalisation yu mucc ayib. d' accord tey bu ñu la doon xayma tey euh, sa mun football ban zone nga doon méngool sa jamono. ah <laughs> da ngay sama gars yi rek nga laaj leen. non dinaa tëj mais naa football ailier gauche laa war. mais yaa yaa xafoor ku yaa ah. xafoor ku dàq football. ah xamoor xamoor <laughs> gauche la moom tamit comme man <laughs> mais bon macha allah macha allah. Uh-huh. aussi c' d'accord c'est un excellent footballeur. d'accord bu ne bu jógee ci yoon ba tey euh, Sadio Mané aussi ñu gis li mu amal fële Bambali rafet na loolu waaye yéen it politiciens yi est-ce que waru leen di def loolu ni ni mel parce que yéen bala ngeen a jóg di jox gars rek élection jub si. waaw mais man de dama mës a yëngatu ci wàllu social. social xam nga di def sax toogaat fii di ko wax man daf may xaw a gêner. Hmm. mais soo ma ci laajul woon sax du ma ci egg parce que dama ko def pour askan wi. Euh, lu mel ni Touba hôpital hmm. Matlaboul Fawzeyni. ok xam na période boo xam ne mayoon naa leen conteneur matériel médical. d' accord ah, hôpital bi. c' est intéressant ah, donc euh, soo xoolee màggal bale passé. Mhm. ah daaw. Mhm. Euh, man maa jëloon samay produits. Mhm. Ah, période Covid lañ nekkoon. man maa nettoyé woon jumaa ji. d' defar ko lépp macha allah. def ko Medina Baye. def ko Tiwaawan. def ko ci ci hôpitaux yi. def ko ci commissariat yi. Mhm. def ko ci kër yi donc euh, vraiment. am na sam benn directeur sax bu ma doon tooñ ne ma pompé nga Sénégal yëpp <laughs> donc pour te dire que man aussi social bi dama ciy yëngatu récemment commune bi ma nekk muy mmh. commune Fann Point Amitié mmh. may naa leen benn ambulance médicalisée te su ma duggee ci gox bi mmh. vraiment gis ambulance bi di daw di ay parfois xaaj guddi di dem di jëlee ay personnes vulnérables ay personne du troisième age euh, sa xol day sedd donc euh, man damay rejoindre li nga wax waruñu rek nekk ci sphère politique bi di politique Mm-hmm. mais aussi war nañu xool naka la ñuy dimbalee sénégalais yi te man tamit loolu mooy euh, loo xam ne moo ma dugal tamit ci politique pour dimbale askan wi d'accord Bouna am na solo sa kàddu yu mujj rek bala ngay tàggatoo Bouna tey Sénégal jëm ci li nga xam ne ni mooy coupe du monde mm-hmm. loo ci wax waaw bon man nag xam naa su may analyser mm-hmm. naa ne nañ ci xaw a tey parce que soo waaw ci coupe du monde bi parce sooy xool suñu joueurs yi ñu bari nekk ñu titulaire seen équipe. wala rôle bi ñu doon joué avant. xaw na wàññeeku. Mhm. donc euh, ma leen di ñaaxaat aussi. Mhm. mais compétition coupe du monde moom. il faut se surpasser. ah donc euh, je demande aussi que joueurs yi. Mhm. vraiment lépp lu ñu am dans les tripes ñu joxe ko. pour euh, redorer le blason du Sénégal parce que bii y une forte attente. mës nañ dem quart de finale. ah je pense que bii yoon suñu demee demi-finale. dina nekk ndam pour Sénégal. incha allah ah te loolu laa leen di ñaanal. amiin amiin mais nag bu ñu foog ne dina yomb. parce que oh. mbir mi du yomb. <laughs> Uh-huh. dëgg la d' accord mbokk yi ba tey euh, ñu ngi doon dalal ki nga xam ne ni mooy Bouna Kanté nekk secrétaire général CICIS Bouna an na ngay tàggoo ñu la doon seetaan. waaw di leen nuyu di leen euh, vraiment jaajëfal et puis euh, di xam ne rek réew mi ñoo ko bokk. donc euh, dañu xool nu mu gën a rafetee rek. Hmm. ñu àndandoo liggéey ko. Hmm. et bàyyi par parloo bi. d'accord bàyyi aussi ce que j'appelle le terrorisme intellectuel. Mm -hmm. président de la république il a son agenda kenn mënu ko imposer li mu war a def. xam na fi mu war a jëm. et incha allah euh, dina teg Sénégal ci ay station yu mucc ayib. Hmm. parce que bi ñu ko falee 2012 ba tey ci loolu la nekk. te gis nañu progrès yi avancé yi dans tous les domaines. ma koy ñaanal yàlla gën ko jàppale. Mm-hmm. ah ba vraiment. Mm-hmm. mu continuer liggéey bi. sunu réew mi nag ñu bañ ko jox ñoo xam ne dañuy essayer. dañ koy dañuy parce que ñi essayer di ah. jéem. bari nañ fi. ah te te te mooy looy mooy ki may ki ngay wax rek léegi. parce que bëgguma toujours di tudd ay tur. turam da nga koy may mais yow xam nga ko <laughs> lu ñu wax ngeen bëgg ko may bës yéen ñii mais man du ma ko tudd. <laughs> d' bu ne am na solo euh, nga ñëw ñu daral la fii suñu locaux yu bees yi ki ko taxawal di sa waay di sa xarit euh, sa mbégte fu mu toll ci lii. di mu taxawal waaw fierté vraiment euh, muy maam góor Diazaka di sama xarit. ah te fekkee naa tàmbali bi. Mhm. ndax fi mu egg tey. Mhm. vraiment seen une fierté muy ku am jom. ku am fulla et ku gëm liggéey. Mhm. donc te boolewu ko tricher. toujours moom ñaxam la yaakaar. parce que fekkee naa ay situation yu bari. yoo xam ne mënoon na verser dans la facilité. mais mu teg ko foo xam ne mooy dëgg fooy mooy yoon. mooy liggéey te tey suñ ñëwee fii. gis bërëb bu mucc ayib mënuma mhm. lu dul encouragé ko di ko félicité naan ko maam góor tu es le meilleur <laughs> <laughs> am na solo mbokk yi lii lañ leen indi loon fii ci référence ak ci zoom ak ci amoon mbégte bu baax a baax di dalal ki nga xam ne nii mooy Bouna Kanté nekk ndaanaan ndekk borom xam-xam mu ngi fi mu nekk mu ngi fay amal liggéey bu am solo ndax ñëw nañ fa ñëwati fa donc mbokk yi ñuy gërëm bu baax a baax Abdou mi nga xam ne nii moo nekkoon ci régie bi ak le doyen Sissoko di allahu rabbi ci li nga xam ne nii mooy Zoom Actu jërë ngeen jëf